والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobu boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions cinq cent mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois mille francs CFA c 3 ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alquranul karim mise en place neuf ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. بنعمة ربك بمجنون